jaajëf El Hadj tey nag ñi ngi ñëw fii nii ci plaza fekk fi Dip Doundou Guiss mu war a génnee album Element tey jii moom lañ ñëw seet si yéen a ngi si seen télévision Equivox TV sama gars yi léegi-léegi tey la album Element war génn ñu laaj grand ban yëg-yëg la ci am tey buy seetaan raxam Dip Doundou Guiss lan ngay yëg waaw déjà dañuy wax ne fierté la parce que aujourd'hui tey euh, un boy la boo xamante ne ne dafa représenté géro ba génn teg fu mu teg tey aujourd'hui tey toujours hip hop bi génnee benn affaire rek day nekk fierté pour tous les gars nga xamante ne ñu ngi ci biir hip hop. et de tant de tant plus que Dip dafa nekk benn boy nga xamante ne dafa am respect bu bari pour ñun donc événement bu mel ni mu woo ñu jël lépp presque dénk ñu ko logique la ñu ñëw taxaw support ko may ko doole. ngénte la dañuy fekkee ngénte bi lekk ci laa. mais Dab Ranch si lu nekk yéen a ngi génne ay single mi ngi def ay buzz mais Dab Ranch si lu nekk album bi kañ la. album bi léegi rek du yàgg. nañ xaar tuuti rek ñu génne leen beneen morceau bu bees tàkk bu tudd nax na ma. waaw nax na ma mais temps yi gis Dabrène si dañuy tegu ci wolof bit seen sànq ni mujj yi. nu mu demee noonu su mel ni solo golo track boobu noonu ngeen sànni si pig wax ci ay réalité yoo xamante ni ñu ngi janoog moom mais dafa am pig yoo xam ne da ngeen ko sànni ñi di rappeurs yi. Mhm. baadoo la genre benn terme boo xamante ni métti na rappeurs yu bëri si biir track bi. non fet xam nga aujourd'hui thème boobu bu nu mettee rappeurs ci biir track boobu juste like kon ma xam ne dafa am lu ñu parce que boo gisee couplet dib ah, waxaat ko et puis de temps la boo xamante ne ne luñ ci wax rek moom moo ci nekk mais buñ ne baadaloo kenn du baadaloo mais juste rek dama shawraat benn morceau bi nga xamante ne dib bi waxoon dib waxoon na ko et puis indiwaat ko si morceau bi mais du dara mais albumu daa brant mën ko xaar léegi rek incha rabbi kazi, duara kazi, duara kazi, duara kazi. Si Plaza duara kazi lady, a building, a Franchement kontaan naa trop te bëgg naa bu baax amaat retour yi nga xam ne moom la gars yi am si album bi parce que album bi du sama album suñu album la ñun ñëpp merci beaucoup. waaw léegi waaw léegi kan ma bëgg photo ak di ah non non léegi non non non léegi discipline ndànk rek ndànk rek voilà donc dafa amoon ñu war a question waa presse ba ana journaliste yi ay ah, ca benn ngi noonu bonsoir sama nom Omar Samba Diao yeah. je suis là-bas derrière. on s'en fout. le camp clair on se croise avant tout euh, je son fan numéro un. je suis étudiant en journalisme communication en mon propre label. j'en ai avec Bison. une seule question. Dip euh, on a vu que euh, la plupart de, de vos fans. elle est nulle ta question. trop même trop. Euh, waaw c'est pas le maa ngi wax olof waaw waaw waaw. merci waaw dama doon laaj fan si yëpp la doon xaar Léopold Sédar Senghor Léopold Sédar Senghor ñëpp am nañu réservé woon seen billet am nañu ko doon xaar sponsor yi ñëpp dugaloon nañ seen xaalis damay laaj dib day délocaliser événement bi feneen beneen lieu wala damay annuler ba déwén quoi. ok. Euh, stade bi bañ ko bañ ko commencé waajal du du ren quoi yàgg nañ si wax yàgg nañ ko bëgg léegi nag li gën a triste mooy dañ ñu ko jox ba pare jëlaat koo xel su fekkoon joxuñu ko genre dinañ dinañ xam ne joxuñu ñu stade bi tu vois mais jëlaat nañ ko pour de raisons de sécurité après mënoo ci dara loolu genre loolu mooy yoon sax benn côté boo xoolee sauf ko benn côté gis nañ tam gars yi ñu ngi def ay nawetaan foofu. c'est un peu mais loolu tam ba léegi nekkul suñu ressort lenn moo mën a nekk ñu defaat loo xam ne day mel ni comme stade bi wala lu ko jege loolu moo tax ñu am date mais bu soobee yàlla dinañ prononcé wu ci question boobu noonu merci. ayca tàcc na loolu beneen question beneen question waaw mu am ay mag ci nekk fii tamit taxaw ayca waaw. maa ngi remercier gars tamit jox leen rendez-vous fan la affaire lan may am après fan la gars yi mën am album bi. waaw album bi pour le moment ku bëgg a xam foo koy amee da ngay dugg suñu page Instagram wala suñu réseaux sociaux yëpp yu nekk Facebook fépp foo mën di di ko am en plus lépp ñu ngi koy joxe ci numéro yëpp parce que. am na fu affaire yi toll genre amuñu woon temps pour def yenn détails yu bëri mais soo duggee suñu page di nga gis communication bi bu baax a baax te avant ñuy jógee fii nii dinañ joxe numéro yëpp yi nga xamante ne képp ku soxla album bi di ko am parce waa waa kii ngi nii euh, waa PAPS ñu ngi fii gars bi nga xam dañuy def livraison yi ñu ngi fii fépp foo nekk si àdduna mën nañ la livrer album bi il suffit juste nga topp suñuy réseau après di nga ko exactement DJ Tall asalaamaaleykum maa ngi salaam jaar nañ eh, la commencé ñu gis ni saa boo gis saa boo defaree album rek wala benn projet rek dinañ gis na dikkaat Grand Yoff def show kon donc mën nañ xaaraat nga defaat show bientôt encore Grand Yoff. allah bu soobee ko def. kañ kañ. waaw loolu daa laaj ñu waxtaan si vite fait rek mais du yàgg quoi du yàgg. album bi dina am ay tournée. normalement normalement dina am tournée Sénégal dina am tournée feneen fudul Sénégal. kon na commencé Grand Yoff. incha allah. asalaamaaleykum dip dama amoon benn question rek parce que dama gis nga def duo ak kooku di Bass nañu xalaataat ak yeneen artiste mbalax maan wala ak jole sax mën na nekk jole loolu dafa leer d'accord Dip Doundou Guiss am na benn mag bu bëgg a poser question nee na yeneen artistes yu nekk ci li nga xamante ni mooy album bi ñan la kan ak kan moo nekk ci album bi waaw album bi Aïda Samb mu ngi si Samba Peuzé mu ngi si DMJ mu ngi si Lefa mu ngi si Bass Thioung mu ngi sama gars taxaw fii yëpp ñu ngi si <laughs> ak karabali karabali yaa welee loxo kara eh, parce que am na loo xam ne foog ma waxoo peut-être yenn saa yi dama koy fàtte xëy na moom li ma jege moo tax mais album bi bu fekkee mel na nu mu mel tey yàlla ak karabali moo tax mu mel nii tey Sadik mu ngi fii Sadik Sadik boo xoolee album bi ñaari beatmaker kese la am ñaari beatmaker si 19 titres ñaari beatmaker kese ñoo si nekk kon ça veut dire ñooñu jàppale nañ ma bu baax si album bi sauf que Kara si raw parce que moo def mix yi boo fekkee prise yi am na bit xam ne yi si ëpp moo ko def patience bi mu am si album bi franchement man sax xëy na xaw moon ndax dinaa ko mën a am donc maa ngi koy remercier bu baax a baax a baax si seen teewaay merci beaucoup Kara Wally Kara Wally ala <laughs> loolu dafa leer di leen di fàttali ñi nga xamante ni dañoo bëgg a jënd clé donc support physique bi c'est disponible ici sur place mooy ci kiosque bu nekk ci ginnaaw di dund gis lan mën a gën a neex ci album bi ut si ñun. la moo gën neex si album bi mooy peut-être bi ma jël pour pour def ko euh, rëccuwu ma ko quoi franchement loolu moo ma si gën a neex bon Dip ñu dañoo buggoon nga expliquer ñu vote bi lu muy demee ci awards bi parce que yow la ñu nga jël ko. incha allah bu soobee yàlla dina jël lu raw loolu noonu bu soobee yàlla. vote yi boo demee boo demee boo demee sama sama site Instagram di nga gis lien bi franchement jàppuma nag jàppuma ñoom seen lien mais African Talent Awards la soo ko tapee si internet di nga xam fan ngay voté ok. ñu may ko loxo ki nga xamante ni bu dina rap international Deep Tundu Kiss lu ñëwee ñaak Paul lan dalal Paul mi ngi si biir staff Dip Doundou Guiss Paul loo dundee lii naka tey ni ngeen dundee seen album bi ngeen war a génnee tey Element loo ñeme ñàkk. yeah avant tout maa ngi lay big yow Jiri di big sa cameraman bi aussi di big up gars yu saan yëpp donc di sant yàlla di sant yàlla parce que lii nii aussi ay mois la ay mois ay donc ñu koy ñu koy togg donc di si liggéey ba tey yàlla yàlla sottil ko quoi donc sant yàlla en une fois di big up ñëpp ñëpp ñu fi teew ñii yëpp fan si yëpp. donc mélomanes yëpp ak yenn animateur yi donc di leen bëgg quoi encore une fois sant yàlla quoi. mais Paul soir fii si Plaza lu tax soir bi lu tax defoo leen ko Grand Yoff am na ay lieux yoo xam ne mun ngeen fa génnee seen album seen base mais lu tax ngeen choisir fii. waaw jusque lii nii en fait lii benn pro benn chronogramme bu ñëw bu ñu tracé woon la quoi juste chance déglu la woon donc li seen parti pour ñëw xam nga ñu dégloondoo album bi mais am na aussi yeneen dates yoo xam ne ñoo koy waaj jàpp. dañ am na sa benn boo xam ne ñoo koy waaye def Grand Yoff quoi benn concert gratuit may ko may ko fans yi may ko gars yi parce que aussi euh, gars yi ñoo war a xam ne type Grand Yoff lay représente quoi moom from Grand Yoff la avant moo doon from from Galsen donc waa Grand Yoff moom waaw nañ ko xaar quoi bientôt dina fa def dara quoi incha allah. am na solo album bi ngeen yan support ngeen ko def pour ku ko bëgg ci yan support ak yan support la nekk. waaw ok en fait album bi euh, si ñetti support lañ ko def donc dañuy ku nekk mun na tànn bu la neex premier support bi mooy si casque yi casque yi c'est à 17 francs mais si biir casque bi en plus de l'album di nga am euh, am na rajo am na aussi carte mémoire booba 17 000 bi à part casque bi am na aussi carte euh, am am na aussi clé USB clé USB bi aussi album baa ngi si biir à 5000 am na aussi téléchargement bi album bi toujours à 5000 si www point dibdounougis point com. am na solo.